koy faral di seeti tous les dimanches à partir de 17 heures sa yaay li mu daj ci yow amoo loo koy jox lu dul à partir de 17 heures mm-hmm. ci semaine bi fayoo naar bi xoromam dëgg la de dafa am benn waay ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa day faatu di génn àdduna di sukuraat te dafa déggoon yonent bi ni laa ilaha illa allah ku mu mujj ci sa làmmiñ boo deewee dem àjjana bravo waaye moom bi muy sukkuraat ñu waxloo ko baatu seede yi làmmiñ bi damm mënu koo wax ñu dem jëli yonent bi këram jagat-jagatee ko ba agsi pour yonent bi te ko baat yi pour mu mën koo wax mhm. yonent bi toog ci wetam dicté ko ba sonn waa ji mënta wax laa ilaha illallah mhm. yonent bi ne wal leen ma yaayam ñu woo yaayam yaay ji ñëw ñu ne ko kii yonent bi laaj ko ni ko kii bi muy dund lu mu la mas a def yaay ji ne ko dund na ba faatu te mas na seddal sama xol mhm. yonent bi ne ko lii moo tax mënta wax baatu seede yi lii la ko yàlla jéppee ba damm làmmiñam léegi nag solution bi mooy comme bu deewee safara la jëm yonent bay wax de ne ko comme bu deewee safara la jëm nañ taal safara lakk ko léegi ndeysaan xolu rek ci mën dara ba tey xolu njureel bi jug dëgg la kay mu ne yonent bi kenn du lakk mu ne yonent bi kenn lakk sama doom dëgg sama doom moom kenn du ko fi lakk <laughs> yonent bi nag ni ko solution bi mooy nga jéggal ko <laughs> jabar sax bu la gungee ci ci bunt bi lay yam yaaye dugg ak yow ci néeg mu ne ko nag foog nga jéggal ko <laughs> uh-huh. pour làmmiñ bi feccee ko mm-hmm. keroog la yaay ji sukk ni ko jéggal naa ko ci xol bu seddu guy yàlla fecc làmmiñ bi mu ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah kon pap <laughs> bégal sa yaay am na solo mm-hmm. yenn saa yi nga gis kuy tiitaru naan mère yóbbu naa ko màkk deux fois fayoo ko je rentre à Mecque yow yow yow fayoo fayoo ko pap c'est vrai de dëgg la dëgg la yenn saa yi da ngay koy tiitaroo mhm. man yóbbu naa sama yaay màkk benn waaye dafa ñëw ci seen sëñ kër ni ko man sama yaay daf ma sonal mère maag moom nii peut-être sëñ kër ni ko waaye du jooy guddi mu ne ko déedéet mu ne ko kon ñibbil <laughs> yow jooyu guddi yi nga xañ sa yaay nelawi guddi mënoo ko koo xañ mënoo ko koo mais Pape Sénégal day réew moo xam ni danu sàggane suñu diine dëkk bu compliqué wallaahi pap njàpp am na lu koy yàq julli am na lu koy yàq sëy yi ñuy def diggante ji góor ak jigéen ñu takk sëy bi mais am na lu yàq sëy bi pap yenn saa yi nga gis ku fase jigéen lu ëpp ñetti yoon continuer di sëy ak moom te foofa sëy amatu fa boo fasee jigéen trois fois ci charia hmm. il faut baada zawji mooy tax nga mën koo takkaat mooy keneen jël ko ba bàyyi ko nga hmm. door koo mën a jël hmm. mais ngay gis koo xam ni jëkkëram fase na ko 49 ak bii waaja ñëw muy cinquante te ba tey mi ngi ci buum. ñu ne rek. <laughs> yenn saa yi pap ngay takk jigéen. xam nga charia dafa sew. yenn saa yi ngay takk jigéen. koo xam ne da ngeen di génn. nga dem ba mu yàgg programme woo woon pour teel koo takk. far yàlla def accident am ci seen diggante. mu ñëw ni la je suis enceinte loolu la ñuy wax. Ah, accident ah, dama ëmb. Mm-hmm. nga ni ko comme da ngaa ëmb nañu profité ñu mayee ñu. takk sëy bi léegi am na ëmb bi ëmb bi am na deux mois. Mm. ñu takk sëy bi. Mm-hmm. yow xam nga ni moom daa ëmb. Mm-hmm. ndaw si xam na ni moom it daa ëmb. Mm-hmm. ñu takk ko. xam nga ci charia buñ ko yëgee nu ñuy def. Mm. tas sëy bi ci tàng tàng bi. te dootu ñu mën a takkanteeti ba yow mal xiyam. ah bon daf lay xaraam sa giiru dund. Mm. accident rek complot bi ngeen complot yéen ñaar. Hmm. nga ni patt mu ni patt. Hmm. jouru takk bi jot mu sol lu weexam tàllal ay tànkam naan merci beaucoup. Hmm. te xam na ni dañ koo ëmbal mu nëbb ko. looloo waral yàlla tas sëy bi. parce que ku ci accident ci defal constat rek. te bu fekk mais nag Pape beneen sew sew daf ci am. Ah. bu fekkente ni bi ndaw si dafa ëmb. bu fekkee ndaw si daa ëmb. Eh. mais xamul ni moom daa ëmb. waa tam xamul ni ndaw si daa ëmb. vraiment. ñu takk sëy bi ñu dem ba ci biir calculer ni bi nu ko fi mayee ak léegi mënu fee ëmb kon daa ëmboon ñu ne waa ji yëg nga ëmb bi mun ne déedéet ñu ne ndaw si yëg nga ëmb bi mu a déedéet charia nee na dañ koy tas bu ndaw si wasi ne ñu may ko ko ah, parce que booba complot wuñ ñoom ñaar looloo waral ñu mën a takkantewaat waaye cëy buñ ko comploowee xaram ti faaqan yenn saa yi pap jigéen sa jëkkër génn àdduna nga war a muuru 4 mois 10 jours pour tënji ko te sharia dafa wax ni jigéen ji nga xam ni bi jëkkëram di faatu daa ëmb kooku ëmbam mooy tënjëm da wax bi bu fekkee sa jëkkër bi muy faatu da nekk en état yow ëmb bi mooy sa tënj yow bu jë bu sa jëkkër faatoo lëndi lëndi bi ci topp nga am doom yow dootoo jàpp idda pare nga ci ñi ëmbul ñooy jàpp 4 mois di jours mm-hmm. alaaji pap l'islam nekkul lu ñuy làmbatu dañu koy jàng mm-hmm. bari na ko fase jabaram ndaw sa xaraam ko mu continuer di sëy ak moom am na góor ñoo xam ni kafe gi saful suukar rek may naa la sa baat am na ñoo xam ni kenn mënta way seen gàmm yow daal mot faal waaw xam nga nu ñuy def ak yow mhm. li ci des da koy denc ba suba jeex na comme di nga ñëwaat incha allahu taala ci bëccëg bi déjà suba nag pap incha allah ñu ngi waxtaane ko tedd mhm. bàyyu Serigne Fallou mhm. bàyyu Serigne Abdoulahat bàyyu Serigne Saliou ki ni woon xarajtu yawma sabti saamina achara li xidmatil muxtaari fi sëhri safar ki ni woon lil moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul garraau wa inni ahmadu ki tubaab bi ni woon ndax ragal nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko lu tax mu ne ko parce que man latta aqaafu durra xalqin ma dama fa wattu amri ila rabbi sama ki ni woon tuuba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati cheikhul xadim ba subaak jàmm alaaj pam incha allah jërëjëf yaa Oustaz dama lay accompagner nag ak euh, euh, sunu gan gi toog ci beneen plateau bi euh, Omar Niane la tudd Omar Niane Habibi defe naa la def muy loo xamee ni man fu ma ko dégg sama xol bi sedd moom laa bëggoon ma ubbee ñu accompagner ko Oustaz waaye moom li tax particularité bu am solo non seulement entrepreneur la chef d'entreprise la waaye dafa yore parti politique. waaye du ko tere dem ci cant yi quand même ci sikkar si euh, Habibi euh, bi ngay tojee dëkk bi